Bienvenue sur Salam Vision. teg ci sa bër wa ma tax xale bi moytu mu gëlëm xam sa cosaan li suñu aada moo ëpp solo naa ko chargé daal Michael Jackson yi mu dee la ma ko jot ndeysaan mu woo ne mal pulo ne mal pulo ma ne ko waaw Michael Jackson daal di maa ko may Michael Jackson ma ni tànk yi ni tànk back sama xol bi day mu siise mu dee waaye bu dee who's back rek ma daal di yëm daal di waay barke Kristu naka ñu ko defee yéen déeg yéen jaar ah, waay ba kii may ko gisul yàlla na dundaat waay yàlla na dundaat waaw foofu foofu dara loo may aju nii foofu wuyu ma rek nga may aju nii lu xew waaw foofu dama wuyu li nga ma def wara nga ma kàddu li nga ma def wara nga ma kàddu li nga ma def laa la tamit chef volontaire bi kër suñu xaalis mu ñëw si kër mu ñëw fekk fa ay góor déedéet bul wax loolu xam nga rek yaa ma gën a xam. comme sa xarit yooyu noonu ñoom Sadio bu ñu wax dëgg la. loolu dëgg la ñoom ñooñu xam nga ñooñu dañ laa bëgg nangu rek moo tax ñuy wax loolu wante yow pupuj waroo maa def nii. ba defee sama yaram day daw déedéet bàyyi ma def la bu tax loolu. sama yaram bi ma bëgg nekkee nga saaga waa kër ñëpp ku li bokk ci nga saag ko nga teg ma bàyyi suma xarit ma bàyyi sumay mbokk bàyyi ñëpp ndax yow déedéet du wax loolu. na ma caa rek erreur la rek. ay xale góor yi amante ni tekki wuñu xale boobu nga xam ne kooku nag fii lay pauvre chaque jour. am musuma fay gis nga mbaam bi moo koy seede gis nga. musu xale yooyu man bëgguma leen kukkuj man ñun laa bëgg. yaa ngi dégg mbaam bi man ñooñu bëgguma leen. yaa ngi dégg mbaam bi dama leen doyoo doyoo ma leen dara man yow laa bëgg su ma ñëwee nga may ajal. salaamaaleykum. andaari kam a heftini a heftini an taw ndaaro de ceertu gis naa ko gis naa ko nga ko léegi xool nga kii xam nga ngam lu may def fii kii ku mu doon kii yaa douze bi la ñëwoon pour pour léegi amul lu mu fay muy waxtaanam pour mu aar ko mu dem douze loolu moo ko indi fii soxna si loo seq ak kii kii sama jëkkër la laaj la sa jëkkër la laa seq ak moom yow eh, ah, la client la client douze la du client douce nga du client doo ko wax client douce nga rek yow mu waxtaan bi jeex ah loolu client douce la client douce la gis nga client douce la ah, yéen a def dañuy puub eh, dañuy fay jógal taxaw eh, dañuy puub dañuy fay quoi eh, yow Amadou yow lii lan la yow Amadou bon nga yées nga mënoon ngaa tëg dëkk ba ba may ñëw foofu ñu rek lay far leen mais fan nga dëkk yow suma client douce yi man dëkk ma fenn ci douce bi lay fanaan kon ñu dem fanaan ko da ngeen dem arrêt bi da lay dul bàyyi fii. xalaatuma ko sax. mun jur day dellu dellul xale bi. ñool dellul xale bi. kii kenn dellu fi tey ñoon dem. fii feregul dellul xale bi. eh sigil ñoon dem. ah bientôt damay ñëw damay ñëw Fuuta lu mal baaraaj ñu ngi may xaar damay ñëw léegi. même soo dee dem lu mal baaraaj ñool ñool. ma dus bi client yi dafa dog de dafa maa ngi yow bari dëkk ba man tey fii lay toog. alhamdulilah dus bi man ci ma jàng la ay jàng laa dëkk de. Eh, nga bàyyi loolu loolu. Bienvenue sur Salam Vision.